man maay oustaz Cheikh Sadibou Diaga maa jiite fédération nationale arabisant PDS mhm. eh, jiite ci wàllu wàllu diine mhm. kon def naa am na lu ma mën a wax mhm. eh, président Macky Sall mi ngeen wax nag xam na kii wax kan la ba ma ko may dédicace boo ma nga intérieur premier ministre bi mu doon doon Karim Wade ko defoon ci jiite ba dem demee jiite ca Makka bi Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade armale ba pare fekk wax na ko Sénégal mu ne ko Karim boo ma ci diw du ma dem Sénégalais la ñoo xam mais moom xam na kii waxal kër gi Macky Sall xam na kër gii ñoo fii lañ ko fii lañ ko nampatele man lu ma wax yi nga wax sa sori euh, yàlla moo xam ki ñëw ëllëg kii na maalikul mu atitul kul mulku ma saaw yàlla ko xam kenn xamu ko mais suñu yéene lañ am Abdoulaye Wade moo formé ñëpp moo ko jàngal jàngal doomam nag ni ñu téye réew ak ni ñu utee xaalis man li ma bëgg la laaj Sénégal yi avant tout mooy presse Sénégal yi maa ngi leen di jég jégalu li ñu dal ndax journaliste la arabisant animateur la mhm. li ñu dal mooy sunu mbokk yi faatu te mënoon na ñàkk nag di toon na waroon a jël Abdoulaye daana jël staffu presse bi dugal leen oto yu sécurisé mhm. mais jël oto yoo xam ne bii amul sécurité ngëm-ngëm lañ ñoon demee ba jiitu jiitu président tey lii mënoon a ñàkk maa ngi koy naqaru trop mais lu yàlla dogal la yàlla na fi yem li ma bëgg xam Sénégal yi mooy bépp Sénégal bu jël sa carte yu wootal ko lu bokk ci Macky Sall wootal nga góor jigéen yi muy inauguré na wax fu mu jëlee xaalis bi te tubaab yi seen alal tubaab yi ay promoteur lañ ku jël amas da nga sëg a te fi mu jëmee Sénégal moom xam na ko am na ñu ko xam barke Seydouna Mohamed xaalis bi mu jëndee bato ak ay avion ak euh, yi xaalis li ci ëpp xaalis goor jigéen la Cheikh Saad bu jàgg ma ko wax na ko weddi moom il faut faire attention yàlla ma yàlla ma alagoon wa ahlu loot bàyyiwu ba tey yàlla boom mi ngi fi billahi la ilaha illallah lu ñu am tamit suñu diine suñu diine moo ñu ko jaral ku jeexal da dem te waat nag wa ittaqu sarra wa ahsan ilaha rasulullahi nee na moytu leen ku la defal teraanga ba leen ko wor wor kat pire la moom ba yaam faatoo keroog maa yor micro bi lu na wax na ko Ablaye Wade tey lii la ko def waaye nag dara yàggut kullu shay'in haalik illa wajhillah lu dul yàlla nañ fi jóge yàlla na rafet. boobu ba léegi ñuy xaar ñuy exploité suñu pétrole bi Sénégal am si lu ñu jàpp mais boobu léegi nag ñuy exploité suñu pétrole bi est ce que mën nañ xaar Karim Meïssa Wade en 2024 bi su jëlee xam na ne safara la jëm waaye iñaana tax nee na du ma dem rek ma rek foo ma am ñu ma yóbbaale moom loola ko dal xam na ne lii muy laal du ko fekke du ko du ko àggale te incha allahu taala na ci rafet moo gën dimanche goo xam ne ñu nangu son say ndombal tànk nga naan bàyyi leen ma ba quatre heures matin ma génn ci moom lañ ko doon gisee bëccëg mu génn palais ba la ilaha illallah Sénégal bala balaa xam ne Sénégal anuñu kenn li ko yàlla li ko yàlla muuru na ko mbir nga xam fii xool ni xool ni permis rafete xool xool jong muy rafet yi amuñu dara mais ngëm yàlla ñu am te fi sëñ Bamba jaar ak moom jaar Abdoulaye Wade mii du torox ba yombal xiyam man mag laa dama retraité professeur historien la damay jàngale institut islamique conseil spécial la fa du ma ko ndaw Sénégal ñuy warati ñëpp may seen bay bi ma ana boogi waxee maa ngi jégalu may seen coordonnateur di leen jàngal ni ñuy jàngal wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam man bu ma bëggee bu ma bëggee parti démocrate sa nga ne dafa fekk ne doomu sëñ Bamba ci ñaan sëñ Bamba ko léemu ku sëñ Bamba léemu ba ngay judd ba nga juddogoo ba fii kon fii islam fi xaw actuellement Sénégal ñu ngi xeex mbirum góor jigéen barke laa ilaha illallah ku leen wooteel dem sawara li muy def ni muy masque yëpp ba mu demee ci sëñ Mountakha Bassir ci suba sa sëñ Mountakha yabal ndaw fi bi ñuy marché bi ñi marché bi du ñu ay politicien ñi marché ñu bañ ku leen ku leen yóbbu safara la bañ te ku leen woto dem safara barka laa ilaaha illallah man Abdoulaye Wade jox ma dépense li ma ñëw fii sama pension laa jënd rek li ci dund kon samay doom ba samay doom nekk ay nit ay nit nit ñu nit ay sénégalais li ñuy xeex mooy ku yóbbu ku jaay suñu ngor suñu diine amuñu lu suñu diine la ñu am te Macky Sall mi jaay na diine ji barka rasulullahi ab sëriñ sëriñ ñëpp ci ku ko jàppale dem safara barke laa ilaha illallah maa ko wax wasalaam